am ko ne arbitre wax ak ñoom arbitre sifle waat na arbitre dana waat na buum sa boy boy ga dana waat na buum sa boy boy ga arbitre dana waat na buum sa boy boy ga ay saan

Calimber daan Calimber mais capitaine lu muy def eh mu daanu dam wala teg na ko dafa delluwaat nañ buum sa booy ba nga jàpp na ko fa mu jàppoon taxawal na ko bañ mu gersu ko Calimber taxawal kenn du ko téléphoné ah on dit kenn du ko ci kaw la woon. xeex Ah, dama ne ay bagaar googu noonu bu amoon sànq ba léegi dóor mu daanu am na yàgg na ndax capitaine bi fi mujj daal dóor booy géey mu daanu maa la wax lii te Thialy Mber aussi loolu lay bëri te Thialy Mber diggante moom fils de balle maa la wax loolu ngay bëre combat metti en tout cas lu ma la ci mënti wax combat metti la ñuy bëree ñoom ñaar combat yi mi ngi dajale waaw capitaine bi mi ngi dajale te capitaine day jàpp à tout waaw waaw waaw parce que da koo bëgg waaye pousse machine bi suuf bëgguma ko de. loolu la bëgg taxawal na ko mbañ loolu la bëgg lii la bëgg. dajale na ko dajale na ko dajale na ko ñu xool fu mujjee dajale na ko naan na ko ci géew gi mi ngi dajale capitaine li muy dajale ay bu sottee fu mu jëm. ond fii nga yaakaar ne fàq mu daw dëpp amu fi yoon. non fi mu toll nii kay téye rek ku jéem a def action mën nga mën nga mën ndax ñoo bokk calambeer loxoom bi mu dugal sax ci biir erreur la. erreur la waaw ñaari loxo biir ñaari loxo yi dañ koo tëj. du mën a bëre. waaw ñaari loxo yi dañ koo tëj. waaw ondu la fu. waroo waroo def noonu ci biir. la vainqueur de Ada Fass. waaw waaw. muy euh, fils de dëgër bu sow. waaw xale yi nañ ko gersu. terrible de ginnaaw raay. xale yi nañ ko jël. ondu faayati. waaye lamb ju neex moo ko ak a góor dafa jaadu. calambeer la muy def nii man ànduma ji ndax lan buñ la jekkoo nga nekk si saako yi boo bañee génn dañ lay daan loolu wóorut boobu ak gombaru ma wax loolu ah, daa wóor laajal laajal on wóorul mais avertissement ba la doon daw mais après la doon daw après est-ce que avertissement ak daanu ban moo gën avertissement ñam ngeen ñaar yëpp ngeen ñaar xam baaxul <laughs> non man daal am na loo xamante ni ci làmb ah. non barke alxuraanul karim dootuma juumloo ci làmb muy lan laa ilaa bari na détail yoo xamante ni dootuma dootuma dal ci lamb dafa mel ni ñoom ñaar ñëpp dañuy a génn pour jël avertissement ñoom ñaari déggoo li la ca commencement ba laa la ne ñoo nuroo li ñuy boo xoolee boo ñoom ñëpp ba kaaw dam ba kaaw dam kaaw day am pakate ko boy eh. la ñu xeexee ñaari ponkol lañ ba léegi li ma la wax boobu ba léegi ñoom ñaar xeex la ñuy def ñaar ñëpp caxabal la ñuy tànte cas ah, deuxième mi-temps bi neex na lool. trop sax. deuxième bi mel na ni Sénégal kii final ba. <laughs> Sénégal tiis Égypte mais li may gis muy lan coono de laay gis mooy jeexal combat bi. waaye kii ëpp endurance. ñoom ñaar am nañ fraîcheur physique. coono kay laaj mooy jeexal combat mais nag ay ndaaraan lañ wax dëgg yàlla. ndax boobu ba léegi liñ joxe. waaw boobu ba léegi ñoo ngi joxe. sa boobu ba léegi waneegul si pratiquement. kenn nanguwul bàyyi. moo tax entraînement rek a wóor. waaw. gàllal gi de moo tali rek. leer laa la instant bii nii moom. Hmm. damay ragal ne coono moo jeexal combat bi de. waaye Calimber li muy maye ba wóor na. làmb day toll foo xamante ne leelaan dootul doot maye coono la. coono la ndax soo xoolee capitaine da kor si kaw. mayewul de waa Iberkil bu ñëwee du baax. maa ngi koy gis barki démb ci combat si te bu ak booy bi dëkk fële. rëbës ñu naan da koy jàpp ci gàllaaj mais déedéet booy préparation bi moo moo moo moo yoon. moom si tëbu rëbës moom caa si tëbu caatu rëbës. caatu dafa gaaw a sonn dafa gaaw a sonn booy bee moo ko ëpp fraîcheur parce que lamb gars yi dañu bàyyi gàllaaj gi gàllaaj gàllaaj ñi ñu xool état physique bu mi ba pare. caatu rëbës dafa yokk poids am te te te adopté wu ko ak ak ak ak ak war bi endurance bi. endurance bi feeñ yaram bi commencé diib musculation bi mu doon def. te amul habitude bi waaw mooy li la Agogo di wax léegi ni waaw des fois kër si bu baax day baax quoi pour mu xam loolu sinon rek gars yi après dañ naan la galaaj la galaaj la sa combat bi ci topp nga dem di wëri àll bi di toppee di wëri sëriñ rek. fekk la nga la nga waroon a def moom nga deful. fekk la nga waroon a def nga deful. waaw eh. ci làmb quoi. combat bi bu yàgg la. bu neex ah mais wax dëgg yàlla ñoo ngi xam nga combat combat bu yàgg sama xel day dem si yaroo baax. yaroo baax numéro un ah. yow nag yow nag yow fekkee tey. dëgg la on on dëgg la li mu may wax loo xamante ne dama naan nu mu demee nii. Ah, baax yaram gay. yaay baax yaram gay. yaram waaw yaram moom. Modou Awa. Awa waaw. Oh. ama seen senior ba ko ba ko Moussa Ndoye di daan. ama seen jamono fan nga nekkoon. damaa gën a nekk tu xale rek nga nekk tuuti. jamono da ngay ñëw di seeraan si làmb ak affaire yooyu. dama daan buurde nag. mais kon yow sëg làmb da nga doon ñëw. dama daan buurde rek. mais ond kii làmb yi muy wax man daf may jaaxal. undu la kii kay wax ma la undu rek waaye kii. boo ànd moom ci oto yi bàyyi ko. <laughs> ba ba oto yee day maanaam ñëpp ko xam. foo dem bàyyi ko. Eh. la. dama ànd ak moom jógee. Eh. esat xaw ma fan lañ doon dem. Eh. mais dama ba àdduna. xaw ni woon am parenté la. oh dama der yàqu na. oh ndeysaan. yéeme na yéeme na. aduna ngi noonu. alhamdulilah nam. ah lan moo xew. non waaye fi avertir kenn nag. non ah, xool ah. ndey abidin daa juum daa oh lii du yoon xam nga xam nga yii yii xam nga ne yii du dëkk du yoon yow dèjà ñiy seetaan sonnuñu ñiy seetaan jëppiwuñu mbër mi mbër yaa ngi bëre ngay joxe avertissement yow man amul fenn lii du yoon yii moom da dul dëkk du yoon waaw lan moo tax arbitre li ñuy def duñ ko wax du yow mbër yi ñu ngi bëre ñiy seetaan jëppiwuñu leen yaa nañu ànd dëgg mais yow jaaduwul est-ce que nekkul ndengeñ bi ah non non waaye ñu ngi yàlla jaxabal yàlla jaxabal la jéem. kee teggi ko attaque kii attaque la ñuy favoriser. daan na ko daan na ko. Calimber daan na ko. Calimber daan na ko. Calimber Calimber daan na ko. Calimber daan na ko jëli bu rëy. daan na ko jëli bu rëy. da kaa tuuse daw mbaar ko sa kaw. daan na ko daan capitaine a ngi noonu capitaine a ngi noonu ndeysaan ñuy wax dafa tuuti daw mbaar ko sa kaw. da koo nax. Amed Deme Amed Deme a ngi Amed Deme na lu muy wax jëlal